nekk sa yaram loo dem dem sa xel nekk ci loo dem dem nga namm ko loo dem dem nga mën man caat mi yaramam tàng na de tey mbër bu nekk sa yaram waaw maa lay delloo maa lay fay waaw di sant yàlla julli bi sant sama ñaari waajur waaw wono fo seede me simnanu gonnu fay sima ngollul keɓ nono seede caade simnam rawatina film la man ke kaɗuma hannde ziyara fof simna fof to jajafala fof dal an ga ke joyi jomi joyi jomi cosan in quoi lamb leñam lamb mooy suñu cosaan di ziare waa Fimela yëpp di ziare mbokku séeréer yëpp di wax daal ñu ñaanal ñoom lañ am quoi am nañ combat le 11 juillet ñu ñaanal ñu si combat waaw ah. gis nga ñëw sa yaram tàng nga baaxu xëppoo suuf. waaw waaw waay ça fait ça fait un an et demi ça un an et demi yoo xam ne bëreewuñu takkuñu ngemb xam nga tooyal ñu xaftaan moo tax ñu ñëw fi suñu xam nga ak woy ñuy ñu gis cosaan rek suñu yaram day tàng même bu dul làmb sax bu ñuy dégg làmb bu day tàng moo tax bu ñëw fi wane suñu bopp il est temps ñu tax ngemb yi dem bëri ji quoi diñ wax gaa ñu ñaanal ma sama mbokku seedu sàlla naa mo yàlla ci am ndam na combat gi jubloo ma 11 ande yi fa moo ja nga am combat ak Modou Diakh ku xam Modou Diakh xam ne xale bu coriace la xale bu mën bés la naka nga koy waajalee waaw moo jë ni ma koy waajee comme ne waajee ko si média muy wax rek ne mën a xam na xam ne bu jour ba mbër la am te xam ne bërëkat la am ndaanaan la am bu yeroo ma def ko ndaw bu reewee nag ma def ma tegal ko lu teng maa ko gën a teng maa ko gën a coriace suuf naa la muy wax si télé yi nag maa la dàq bëre maa la mun maa la bu doole côté boo bëgg nag boo loo loo ñëw ma loo indi fekk la si muy xeex muy bëre ak lépp loo bëgg ne nee naa boo yaroo ma defal ndànk boo yarul nag ma tegal la lu teg a dof maa la gën a teg. lu teg mooy lan. lu teg mooy déggoo ma mbër day xajam ñun lamb mooy suñu cosaan ay séeréer lañ dana tu séeréer mooy daw suñu yaram namuñu dara lamb kese lañ nam buñ juróo ba léegi dañuy bëri moo tax bu tollee si télé wax daf may jaaxal man maa nu ma ko man maa nu ma ko man du ma ragal doomu séeréer laa cent pour cent dara séeréer mooy dafa sama yaram mu jàpp wax jee fi nekk bu ñëwee da lay faxas jàll. déggoo déggoo li ma la wax de moom daf ma xeeb dinaa adversaire déggoo li ma 50 50 tolloo tolloo fii dara amul amul lu mu indi fekk ko ma de yow moo bu jour ba le 11 juillet si kattanu boo dëggalee sa bopp dinaa duma dinaa daan boo xeexee ma ma ma dool la nga daanu boo bëree ma jàpp la la loolu laa lay tegal. loo wax say supporter. waaw sama supporter xam nga wax rek comme ni ñu daan rek xam di woo di comme ni comme ko waxee i xoya nuun fop nu ngar o yaalo ci'e ndamno combat fa ne andeer in fa moƴja parce que moƴja ten i njetu combat moƴja ko mafan wa no seereer problème cent pour cent xaƴa i ndefa te seereer seereer ɓori xar diida no moƴja moƴja refu paax ñoo jege diid jege diid amul diid comme ni nga ko waxee rek amul yene réussir tiid ay 100 pour cent seereer lañ deetu lamb mooy daw suñu yaram ñun dañoo juddu fekk suñu papa yi di bëre suñu yaay yi moo tax bu ñu o sereer i ngimu o sereer ka war o gimi xooxum i ngimangima kooyin comme nen laytan rek maak fran wa kene mbaaseme waro numtoot ino sereer i numti cosaan fene i mbonu moon cosaan fene loolu amul lu may wax nag wax ji wax ji yu bëri bu amee lu débordé nga xam ne man la bu amee loo xam ne baax na nga la quoi so kii ne muta quoi mais daa fop da nga danaamo yàlla cey ndam quoi parce que njom to séeréer soomi arafa alvale fofo fuɗɗa keɓ ɗomo seeto huma en bap rek iwenge ɗa maako ndef il est temps séréer wen sikkani to séréer wen joyi jewi dam parce que nous somin joyi yakare leng moo ca mooy li ma la waxoon li ma li ma li may wax séeréer dama la koy man maa dàq bëre maa dàq xeex maa la gën a wow maa la gën a coriace maa la gën a teng boo yaroo ma def la ndànk boo yarul nag ma ñu la lu teng cinquante cinquante foofu laa amul lu may wax tolloo tolloo